ba tey rek yàllaa ngi continuer di nettali xare ba muy xare bu Uhud dafa metti woon lool ci saxaaba yi naafiq yi tamit kontaan ci lool musrikuuna yi bég ci waxoon naa la danañu wax avant xare bi xew préparation bi yàlla wax na ko ci téere bi li xew tamit ca biir guerre ba ba ni muy jeexee toppal nañu ko bi mu jeexee tamit commentaire ya yàlla bàyyiwul ca dara tey nag parce que ngi ci fin bi ndax bi guerre bi demee ba métti dafa am ñu daw waxoon naa la ko am na ñoo xam ne dañoo daw ñëwaatuñu am na ñoo xam ne daw nañ ba mu sori ñu dëppaat am na koo xam ne ku mel ni talxatu wala ñoo xam ne di fukk ak ñeent juróom-ñaar ci lansaar juróom-ñaar ci muhajirin yi ñoom sonn ñoo daw seen xel wu rëy wawa ñu doon daw nag la leen yàllay nettali xam nga ni li yàlla rek moo ko sañ ku maamam dawoon ci xare mu jël histoire ba saxal ko ci téere bii doom ba pencam yalla ñukoy jang koku kenn nako sañ mu yalla motax dawi sahaba yu xir yooya ak nam metti won lay wax si ba ñuy daw timit ni yonent bi taxawé mom kim nek di len wo ne illa ya ibadallah illa ya ibadallah gaya ya ko ñagay daw rek yalla ne seen xeli jere ngeen ci ñaari da ngeen doon dawali sen dawali ga far jural len daw da ngeen doon dawali mangama ma ci gelemi ci fas yi ci marchandise ba tax ngeen wacc fi len yonentou bi placé won ci kaw montagne ngir kom kom aduna ngeen doon dawali kom kom ba nak tay yobbo na len yeena ngi daw ba ngeen dawé màng ma ngeen doon dawali jotu len ko ba ngeen dawé ñu ci bari ci yeen gañ nañ len ñu ci bari ci yeen ñak nañ seen bakkan su ko defee ngeen am ñaari njàqare njàqare la ngeen doon dawale jotu leen ca njàqare tamit liñ leen gañe seen kilifa gi nga xam ne yeneen ko bàyyi gannaaw yi daw tamit xamul leen nu mu nekkee yàlla nag ne dama leen a bëgg ngir seen kilifa jéggal naa leen toppatuma leen daw ya jéggal naa leen ko moo tax Seydina Ousmane wax naa la ko benn bis benn doomu bàjjen di ko kafee ne ko Seydina Ousmane fàttaliku nga sa daw ya kere Uhud mu ne ko bu ko waxati yàlla jéggal nañu ko ba pare ndax nag daw yi mag neexut a nettali léegi nag bi yàlla bëggee ñu gañe yàlla bu la bëggee nga gañe ci xare dafa lay préparer terrain bi wala mu préparer la sa jëmm bi mu namee ñi xare ñi gañe badar dafa préparer terrain bi ci beeñ lañ nekk mu taw te boobaa beeñ bi boo tawee day neex a dox ñee nekk ci xuur mu taw bala ñoo séq seen tànk ya coono booba rek day fekk ñu sonn bala ñoo song ak gaaya ñii nag ci Uhud bi ba yàlla nammee ñi gañe ci mujj gi dafa préparé seen jëmm yi fekk na ña nga sonn ñii ñi gaañ leen yàlla roof leen jëmmantu te fekk ñu ngi ci sàppee xare bi Abi Talha ta ne da gis koo xam ne sax jaasi jim royoon sax da koo mujj rëcc am ñu nelaw ba gént xam nga nag coono lu mu métti métti ki sa yaram li koy dindi li koy jeexal mooy nelaw boo noppaloo rawatina nelaw rek da ngay amaat force gaa yi nag bi ñu gëmmantoo rek que fi nelaw ci diir bu gàtt ñi amaat fors nag biñ songeewaa teg yëfiri rek yàlla may leen ndam waaye gis nga yàlla moo mën a séddale lenn ñenn te du daj léegi léeg mu séddale lenn ñenn ñëpp daj ko ngëmmantu ko kat ci armée bi yonent bi la ñuy bari bari naafiq yi kenn gëmmantuwu te mi ñu ngi seen biir ñu ngi ragal jullit ñi nga xam ne ñoo am pas-pas bu dëgër rek ñoom ñoo gëmmantu loolu nag lay wax si nii diggante xiliyaag lañ doon dawali ba mu jural leen ak daw njàqare gañ ca jëlee ci ñi gañe leen njàqare gañ ca jëlee ci màng mi ñu doon dawali jotuñu ca mujj si bi leen yàlla na namee dimbali gémmantu gim leen roof ba ñu amaat force njortu yu ñaaw ya doon naa fiqi di njortu naan ñun bu ñu amoon benn cër ci yàlla lislaam bu doon dëgg ñun du ñu gañe commentaire yooyu la yàlla lay wax si nii ci aayaat yi ma fas yéene firi moo tax sama borom ne is tusaiduna fàttalikul waxtu wa ngeen ni nàmmatiku wala talwuuna te gestuhu leen ala ahadin ci kenn war rasulu mbir moomu yonantu bi sallallahu alayhi wa sallam yadduukum mi ngi leen di woo fii mbir mi muy nekk ci seen gannaaw yéen ñépp a daw bàyyi ko fa ba mu mooy talxatu fa asaabakum fayee na leen moom yàlla man njàqareeg faatal leen màng mi ngeen doon dawali bi rammin ñu jokkale koog maanaam njàqareeg gañe gi ñu leen gañe ak kilifa gi ngeen bàyyi gannaaw jéggal na leen nag ci la lii aju jéggal na leen li kay laa tax sanoo ngir bu leen jàqati ala maa faatakum leen faat wala maa asaabakum du caaken li leen jot wallahu yàlla xabirun aji dañ kumpa bi maa taamal na xam yéen a ngi koy jëf de suma anfala gannaaw si ge wàccee na alaykum ci yéen min baadil xammi gannaaw njàqare gii dal leen mu wàccee ci yéen amanatan kóolute kóolute ga lan la mu ne noxasan gémmantu laa wax badal la gémmantu goo xam ne yaxsha dana muur taaifatan kuréel min kum ci yéen wa taaifatan kuréel nag te mooy naafiq ya xadd ahamathum hitteel na leen anfusahum seen bopp seen yoon nekkatu ci seen kilifa ga di sayduna muhammad yazunnuna mbir moomu ña ngay njortu billahi ci yàlla njort goo xam ne xayral xaq du dëgg moom daal xannal jaahiliyati fa mel ni njortoog ñu réer ña njort ga mooy lan ña ngay wax ne xel la naa dédd ñu ñeexal minal amri ci mbiram ndimbal mi min sayin ci dara qul wax leen yow yonent bi ne wa qul wax leen ne leen inal amra naka mbiram ndimbal kullahu léppam li laay ñeel na yàlla yuxfuuna mbir moomu ñu ngay nëbbu fi anfusim seen bopp maa laa yëbduna maa laa yëbduna loo xam duñ ko feeñal lakka lañ nëbbu nag mooy lan yaqulu na ñu ngay wax ne law kaana bu nekkoon lanaa di ñu ñeexal am amri ci mbiram ndimbal shay'un dara maa qutil naa déef déef di rayeef ñu xaahu naa fii qul wax leen ne law kuntum bu ngeen nekkoon maanaam fii bu yotikum seen léegi yi la barasa dana génn la si na ñi nga xam ne ba dogaleef na alim ki ñoom alxatmu dee ila madajiihim ñu jëm ci seen place bu nërmaluwaay wala yëpp tali yàlla def na ko ngir feeñal jëflante jëflanteeg kuy nattu allahu yàlla maa fii sudur nekk seen dënn yi wala yu maxisa ngir na jàqee maa fii xum nekk seen xol yi wallahu yàlla alimun xamaa kon la bi daati sudur nekk si jëmmi dënn yi de kon xare baa ngoog yàlla ne fàttalikul xel ya ngeen nàmmoon di daw xel bu xasee xiir dëgg-dëgg borom du gestu koo woodu la gestu kenn talut kenn kenn ku ne yaa ngi tal sa morom ndax xelu bakkan ngeen doon daw su ko defee yonantu bi mi ngi leen yoo naan illa ya nekk seen gannaaw xuyuhu leen ko ngeen boole ñaari njàqare njàqareeg la ngeen doon dawali jotu leen ko njàqareeg gañe giñ leen gañe ak seen kilifa gu baax ngeen bàyyi gannaaw xamu leen ba ngay dund xamu leen génn àdduna gannaaw si gi yàlla namee ci yéen ndimbal mu roof leen gémmantu coono ak jaaxleeg njàqare gi nekkoon ci yéen yëpp teqalikoog yéen ngeen amaat force soo ngaat di yéeféer yi door am nag gañe gu leer ci biir loolu nag ñaari naafiq kenn ki mooy mu'taq ma ngay wax ne buñ nekkoon ci dëgg lii duñu dal Abdullah ibn Ubay yu ne su lislaam nekkoon dëgg duñu rey duñu reyal suñ gaa yi yàlla ne dee moom maa ko bind maa ko yebal ci ki ma soxla ci moom ku ma kos yebal ko ci moom daw mënul ko cee musal dafa mel ni sax boo dawee dangay ngay far dajeeg moom bu yàlla dogalee dee ci yow foo mën a nekk dee fekk la fa laaj ko suleymaan ak àndandooram ba dafa mos a toog moom suleymaan mbooloo mi wër ko benn waay nekk ca biir mbooloo ma nekk malakal mawti la dafa sol jëmmi nit rek jël bëtam yi rek am ku ko fixé waa ji bu gës bu bu maanaam bu sëggee xool waajaa ngi koy xool rek bu gëstoo seen ñeenti bët yi dajee rek mu yootal Suleymaan ne ko waa ji li may xoolee ñemewuma ay bëtam damaa bëggoon daal nga dimbali ma abal ma sa ngelaw li mu yóbbu ma léegi Amérique léegi mu yëg ca ngelaw la rek ca saasa rek ba muy wàcc Amérique rek. dajé ko doon xol mu rocc roofu ga suleyman ne ko loo ko doon xoolee mu ko sama borom moo ne ma woon naa ko andil roofam ji midi moom waa ji te fu mu ne actuellement ñu ngi ci dix heures te nee na maa ko ko war a andilee ci suufu amérique te lu ko war a mën a yóbbu feeg amérique ñaari waxtu yi man daal jaaxal na ma ndeke waa vol bi mu doon jël pour ñu embarqué ko ci deexam la jëm te xamu kon dee la kenn mënta mucc te nag kenn ku ne yàlla programme na si ngay deexee suusa waaye yow fekk xamoo ko programme na sa waxtu wa programme na melokaan wa waaye nag fekk moom riir na ko wa ma tadri nafsun maada taksibu gadan wa ma tadri nafsun bi ay ardin tamut fekk waa ji moom Amérique la war a deexee ndax nit ki lum lum mosa ragal ñaara ko ciy musal bi ci njëkk mooy dugg fu am sécurité loo mosa ragal boo duggee ci fu am sécurité mujj ci yàlla ne ne dee bokkut ci ki may yegal ki may ki may yebal muy war a jël si roox yi kooku faalewut garde corps faalewut sécurité ak lu mën a mel moo tax mu ne aynama takunu yudritkumul mawtu walaw kuntum fi burujin musayyada ñaareel bi loo mos a ragal soo nàmmee xel daw man nga cee mucc yàlla ne dee bokku ci qul innal mawta alladi tafiruna minhu fa innahu mulaqikum su boobaa nag kon pexe amut moo tax kon kenn mënu ci dara yàlla nag ne kon lii ma def tey ñi gañe leen bu amutoon du ngeen xàmmee ñaari kàddu yi kàddu ki wax ne buñ nekkoon ci dëgg duñ dee kàddu ki wax ne ndimbal li ñu yonent bi dëhaloon bu fekkoon ne dëgg la li ñu dal du dal suñ kaw ndax yooyu fekk li amutoon du ngeen ko mën a am kon bàyyi na loola léegi nag ña daw la yàlla wax na jéggal naa leen yàlla ku bëgg yonantu bi la sallallahu wa sallam am na kilifa goo xam ne boo làqoo ci gannaawam loo dugg mën nga cee génn loolu la yàlla dogal moo tax mu ne inna alladina ndaal gaaya nga xam ne tawallaw dëddu nañ minkum ci yéen yowmal taqaa bis ba dajee jamaani ñaari mbooloo ya mooy musrikuuna yi ak muminuuna ya yàlla leen layal ne innama tasalahum naka tarqiisal na leen saytaanu saytaane bi baadi ma kasabu ki sababu lenn ci nga xamne ñoko fagu wala qad afa wallahi sa deug deug jegal na laahu yàlla xanu walis len wallahu yàlla ghafurun jéggalaa kon la halimun ku lewet la ya ayuha alladina gaa gaay xam ne amanoo gëm nañ yàlla la takunu bu leen nekk kalladina bi mel ni ki nga xamne ne kafaroo dañoo wedd yàlla wa qalu ñi wax li ikhwanu ñel seen mbokk ya nekkoon ci xare ba ña wax ne isa darabo ñu ne ba ñu tukkee fil ardi ci suuf aw wala ñu nekk xusan di way xeex ñu ne law kaano bu ñu nekkoon xend naa fa ñun maa maatoo du ñu dee bu ñu nekkoon fa ñun wa maa xotiloo dee fu rayef leen yàlla nag mu ne liwej ala ngir mu jël na laahu yàlla zalika wax jooju xasratan muy ak réccu fii xulubum seen xol yi wallaahu yàlla yuxyi mooy wa yumitu mooy rey wallaahu yàlla basirun xamaa kon la bi ma taxmal lu nga ma ne a ngi koy jëf wala in qutiltum billaahi su fekkee ne rey nañ leen fii sabilillahi ngir yëkkati diine yàlla ji aw muttum wala ngeen dee te kenn reyul leen danaa leen jéggal de te la maxfiratun ak njéggal gu tuuti mu ne minallahi gu bàyyi ko ci yàlla wa rahmatun ak yërmande xayrun moo gën ma mimmaa tajmaxoon li ngeen dagale ci màng mi de yàlla bëgg yonantu bi ba bëggaale ko ànd ak moom mu ne yéen ñi àndoon ak moom dem ci xare ba mbir mi métti ngeen daw seytaane moo leen ko def loo kon jéggal naa leen ewuma ci layal naa leen seytaane moo leen ko def loo ngir lenn ci li ngeen fàggu ci ay bakkaar te mooy xuuteeg ndigalu yonantu bi sallallahu alayhi wa sallam taxaw leen ci montagne bu leen wàcc ngeen wàcc waaye lu métti métti nag bu leen niroog yéeféer yi nga xam ne bu seen mbokki tukkee dee mbaa seen mbokk dem ci xare dee ñu ne ñoo sacrifier seen bopp ñoo ko teg seen bopp buñ toogoon tukkiwuñ duñ dee suñ demutoon ci xare ba tamit duñ dee yàlla wane ne tukki terewut a dee dem ci xare terewut a dee toog tamit taxut a dee dee sama loxo la ne maa koy programmer ci ku ma neex waaye daal seen yéen ci dëgg bu ñu leen reyee wala ngeen dee te kenn reyut leen danaa leen jéggal te sama njëggal lu mu tuuti tuuti moo gën àdduna ak lu ci biiram danaa leen yërëm sama yërmande lu mu tuuti tuuti moo gën àdduna ak lu ci biiram moo gën fa nga tam àdduna mu ngeen doon njëkkalante ba bàyyi ndigalal sayyiduna muhammad sallallahu alayhi wasallam bi ci tegu yàllaay wane kilifa ni mu war a mel kilifa gu àdduna ak bu diine ñoo war a niroo jikko jikko ja du dara mooy melo yore melokaanoo garab garab danañ koy bëgg ngir ñaar bi ci njëkk mooy ker bu ñaareel ba mooy meññant kon kilifa liñ koy bëggee mooy jàmm kilifa liñ koy bëggee mooy njariñ yàlla na yonent bi boo gisee nga xilif ñëpp da nga xëpp ñëpp jàmm xéena ñëpp am jàmm boo gisee timit nga gën ñëpp gën a bëri ñépp njaboot sa ker gi dafa neex neex a kerlu sa meññant mi dafa neex neex a yow garab nga go xamne ku tok sa ker gi du nango du nango du nango genn garab nga go xamne da nga meñ sa meññante mi ku ko mos du bëgg ko ak yow waye bo nekkon garab go xamne amulo amuloo ker wala nga yore meññant mo xamne neexul dafa forox wala mu wex he he kula mos rek yabbi la waye yow kilifa nga go xamne kula mos tu la bëgg yabbi mom lay wax ci ne yonantu bi sallallahu moo tax mu ne fa bi ma rahmatin ci sababu yërmande maa gi dafa dolleeku waaye ñëw na ngir ak tëkiit minallahi gu bàyyi koo ci yàlla lilta nga tàggatee sa jikko lahum ñaan leen walaw kunta boo nekkoon farzan di ku ñaaw jikko xalisal qalbi di ku wow xol lan faddoo ñi bàbbeeku min xawlika tukkee ko ci sa xiiw faafu na nga baxale anu walis leen wastaxfir na nga jéggal lahum ñaan leen wa shaawirum na nga leen diisu fil amri ci mbir mi fa ida asamta boo dogee fa tawakkal na nga sukkandiku allaay ci yàlla inna allah naka yàlla yuxibu dana mu yool almutawakkilina way sukkandiku ja kon gis nga yonent bi yàlla nee na ko li nga manee ñëpp xilifee ko ñëpp ñaari jikko rek la bi ci njëkk mooy yërmande bu ñaareel ba mooy rafet jikko kon yaay ki yore kaanoo garab sa ker gi neex ku la mos ba dugg ca ker ga du bëgg a génnati kon kilifa gu bëgg a xam mbooloo te mbooloo moo xam dootoo ko ñàkkati ameel melaw ker xam ngeen ne garab ku cay toog ker gaa tax garab timit ku cay yéeg wala nga wutab lonk di jéem a wàccee la ca kaw meññant tax waaye meññant foro meññant mu wex jaralut yéeg kenn jaralut timit kenn du wutab lonk kon nag kilifa gum mën a doon ñaari jikko yi boo ko defee rek sa kilif téef ga sedd ñi nga xilif ñi ko nga am jàmm ñi am jàmm suñu Abdul Ahad Mbàkke dafa daan wax ne jaami yàlla yi ku leen yéene jàmm suñ ko xamut tamit da nga ko xam jaami yàlla yi ku leen yéene wut jàmm suñ ko ñàkkee tamit yow doo ko xam kon nag loolu lu am am solo la yàlla ne ko nag bu sa ker gi naqaree sa meññeent mi naqari nit ñi bàbbee ko bala fi ndax nit ñi tamit fu ñu mën a nekk njariñ moo leen fa bàyyi kon nag loolu yóbbal la bu mag bi ci tegu yàllaa ngi wax ne moom yàlla bu leen dimbalee ku leen di mën not amu fi aaya la joo xam ne ku ko jàng sa xel daj mbokk mu baax ma Abdou Latif ku bëggoon aaya ji la in yansurkumullahu fala ghaliba lakum bëri woon na lu mu ko doon jàng bariwoon na lu mu ko doon wax ci ay discours mooy Latif mi nekkoon jamra yàlla na yàlla beesal yërmande ci moom moo tax yàlla ne in yansurkum bu leen dimbalee allahu yàlla fala gaaliba déet jenn aji not lakum di leen ñeexal wa in yaxulkum bu leen seetaanee mooy gàccal leen fa man alladi anakan kaaka yansurukum wa leen dimbale min baadihi gannaaw yàlla wa alallaay ci yàlla dong fal yatawakkal na sukkandiku mooy nu ne way gëm ña de wax ja jeex aaya ji ca tegu wa maa wa maa kaana lin nabiyin kilifa ku ko don gu àdduna gu diine soo mënul encaisser ñàkk njaboot fokk nga yaatu gannaaw wane ne yàlla ma nattu nekk ci kanam ñi ma jiite nekk ci gannaaw gënuma leen ba leen di jiite du ci judd du ci xam-xam waaye yàlla ma ko nattoo kon nag naa muñee kàdduy gannaaw yañ may jox comme maa nekk ci kanam ñaara fi ne tànn nekk ca kanam di encaisser kàdduy gannaaw wala nga tànn nekk ca gannaaw di joxe kàddu ya nekk ca kanam yaakaar naa nekk ca kanam nag di encaissé moo dàq kooku nag ku ko yàlla nattoo gu diine gu àdduna mënoo mucc mukk encaissé kàddu yu ñaaw ku bëy ku mënta muñ kàddu yu ñaaw doo xilif kenn doo xilif sa soxna doo xilif sa doom doo xilif say mbokk doo xilif say xarit doo xilif koo mën na xilif ñaari ñu doo leen doo leen mën a dagale xoolal yonantu mi gën ñëpp xilif ñëpp kàddu gu ñaaw giñ ko yóbbu ku day ni yonantu bi ci mbaax ci njub ci ragal yàlla ñu koy tuumaal sàcc ci màng te njabootam ñoo ko ko tuumaal mu muñ menn mbàjj lañ kool gisoon ko ci xareeb badar ñu toog toog gisatuñ mbàjj ma munafiquuna yi ne ah mën naa am yonantu bee ko jël de loo ci man muñ rek ci kilifa gu day ni moom yàlla ne waxuma yonantu bii sax waaye yonantu buy sàcc amul yàlla du yónni kuy sàcc ba tax yonantu yàlla yuusufa bañ ko tuumaalee sàcc in yasriq faqad saraqa axun lahu min qablu fa asarraha yusuf fi nafsi walam yubdiha lahum am na te fekk sàcc gi ñu koy wax kat maamam moo yore woon benn xiram fa bàyyi ba maamam génn mu jël xiram ba toj ko sànni ko ca sën ba loolu ñu bëgg ko tuddee sàcc loolu kay xanaa lu baax la waye yonentou bu yalla yoni ngay sàcc amul ci kaw suuf nitu yalla di wëlli du sàcc borom xam-xam du sàcc nit ku baax ku maandu du sàcc sàcc ba ko xale def am nga jikko ju bon yalla nak indi ay ji di dakal yonentou bi tuuma yu bon yoyu ñi wax ko ndax mom luñ ko mësa a rek yalla koy dak luñ mësa a yonentou bi rek yalla dak ko moy kilifa wane tamit na ngeen moytandiku sàcc sàcc nak gi ci gëna bon mooy sàcc mbooloo lépp sàcc goo xam ne nga koo sàcc kenn moo gën a oyof sàcc goo xam ne da koo sàcc lu ñëpp bokk moo tax sàcc ci màng garaaw parce que sàcc ci màng boo ko defee ameel nga àq mbooleem ñu demoon ci xare ba su boobaa nag kenn bu la jéggalee du doy ñaar bu la jëggalee du doy ñépp lay bokk jëggal nga door a wàccook yàlla su loolu amut sa lu baax li la jël fayee ko mbooleem ñi nga ameel càcc ga bu lu baax la jeexut ñu jël lu bon ñi nga ameel càcc ga yëpp këpp ko ci sa kaw mbaa doo dem safara moo tax sàcc dërëm boo xam ne dafa aju ci réew ci état moo gën a garaaw sàcc dërëm boo xam ne kenn ko moomoon ndax boo sàccee benn dërëm bu aju ci état ameel nga ko état bi yëpp na population ba yem rek bu ñuy trente million benn dërëm boobu ameel nga ko trente million yëpp bu ñuy cinquante millions ameel nga ko cinquante millions yëpp bu ñuy quatorze millions noona lu population yeb rek noonu la sàcc ga moo tax kon doy na doy na waar de 1000 francs boo ameel kenn moo gën a wër 1000 francs boo xam ne da nga koo ameel gaa yëpp boobaa balaa yàlla ba yoonu yàlla nekku ci dafay wax ne lii sama yoon newu ci ñi ngi ko ameel ñoo la mën a baal suñ la baalut 14 millions yi mbaa 15 millions yi mbaa trent millions yi ñoom ñëpp kenn ku ne danañ xuuf ki sa yiw fay ko bu yooya jeexee te jeexut ñu jël lu boni 30 millions yeeg 15 millions yeeg këpp la ko. ndax kon nañuy bàyyi xel ci jëflante yi nañuy bàyyi xel ci alal yi léegi-léegi mu neex waaye fekk ma ngay naqari ca kanam moom lay wax si nii yàlla ne wama kaana yellut li nabi ñeel benn yonantu an yuxalla muy sàkk ci màng wa man yaxlul képp koo xam ne sàcc nga ci màng yaati dana dikk yowmal qiyaama bi ma xalla ca la mu sàcc yowmal qiyaamati suma faate tepp def na matal kullu nafsin bepp bakkan bima kasaba ci lam fagu wo hum te mbir moma ñoom la la munu defut toñef len balen ni wañi lu bax luñ am ba ñu len yokkal lu bon luñ defut afa man taba ndax ko xam dafa top ridwaana laay ngërmënde yalla ka man baa ndax man na niro ko xam dafa dem bi saxtin ci sanji ni lay bu baye ko ci yalla wa waaw jahannamu moy safara wa bi sa bonna masiru mujju way ba hum ñoom nit ñëpp darajaatun boromi dara lañ ak darakaat indallaahi fa yàlla wallaahu yàlla basirun ku dañ kumpa la bi maa taamal lu nga xam yéen a ngi koy jëf de ñi jàng bi maa yaamal nga xam ñu ngi koy jëf kon mbir màngoog sàcc baaxut aaya dafa daanee ne ku sàcc bu yowmal qiyaamee la nga sàcc da ko xenu péncam yàlla mi yëpp jàkkaarloog yow yonentu baa ngi koy wax ci xadiis tirmisi yu moo ko solo mu ne bu ma kenn xam di ñàkk di ma di ma ñaan tenu ci yàlla te fekk mënuma ca dara fekk yaa nga sàccoon gëléem gëléem nga di naañ gëléem nga di bëmm ci sa kaw bopp bi walla nga sàccoon nag nag wa di nàññi wala nga sàccoon bëy wala xar muy meem wala nga sàccoon ay ganaar ci waxin muy sab wala nga sàcc loo xam ne mënul wax lu mel ni wurus mbaa muy xaalis wala muy matériel boo ëllëgee da nga ko xenu ci kanam péncam yàlla mi ña dee woon ak ña dekki woon ñépp fekkee ko loola mooy li mat gàcc mu yawma la sarairu fama lahu min quwatin wala nasir bis booba jar naa bàyyi xel ku sàcc suuf yonentu bay wax ba tey waxul hectare waxul meetar nga sàcc ko ci waa ji bornom bi wala ci toola bi mais sebre rek la wax sebre la nga sàcc nam toll dañ ko jël ci juróom-ñaari suuf yëpp ñu xen la ko boo fi nekkee ne juróom-ñaari suuf kees ak sareet gétt ak gëléem gétt ak nag lu ko nit di xenu foo déggee ne amaanaam xattanu ma li may xenu yaa ko bëgg a xen sa bopp mais yàlla kum xen nga xenu boobaa yàlla xen nit ñi nag kon yéen ñi sàcc gétt yi da ngeen am problème de te fu mu ne nii sàcc gétt nag yi dafa xew ak ni àll bi leeree li ma gën a yéem dara du feeñ ndey sàcc yee bëri ñii sàcc keesu sareeti jàmbur yi ñii sàcc fas yi ñii sàcc ay jakarta ñii sàtte oto jàmbur yi nga xenu ko muy ralentir loolu lépp jarna daw bu yowmal qiyaami lu way sàccoon dang ko hen ci péncam yalla ma ku saccé nu milliard timit dang ko henu de bo defé nak sa population bi yépp ñi ca bokku ci ciacci ga taxaw takkaayu la ca kanam sa borom jarna baye xel lo lu bari mëno ci passé ak ak ko may lo koy defal saccal ay nit jëru ko saccal nit jërul ay duma mënu ko mënoo passé ak reer ak ak fo dekk fo sol def ko kon nag jëru ko nañ ko bàyyi xel yàlla ne na nit ñi ñaari xaaj lañ ñi jëm ci ay darakaa ak ñi jëm ci ay darajaat aljana mooy darajaat fu gën a kawe kawan gën a neex ba ca gën a kawe ca darajaat ya mooy na illiyiina na nag quartier la bu nekk ci firdawsi yonentu bi ne bu ngeen di ñaanatee aljana ñaan leen booba moo ci dàq yépp janatul daaru naim am na daaru salaam am na janatul waa am na demeet safara tamit ay darakaat la jahim am na laza am na sair am na fa la ñu ba ñu dul julli de maa salakakum fi saqara qaalu lam naku min al musallin am na ke darakaat ya hawiya hawiya nag mooy kal bi gën a suufee fa la munafiquuna yay dëkk moom la alquran ne inal munafiqina fi daraki al asfali min an naar boobaa ca gën a boobaa ca gën a garaaw bi gën a sedd ki safara mooy jahannama te pourtant téere yi ne nañ la muy sedd sedd benn ferñeentam bu rëccoon ñëw ci àdduna géej yépp dex yépp déeg yépp ak teen yépp mënuñ koo fay kon xam nga kooko seddam nga doy na waar loolu mënuñ koo fay kon xam nga loolu doy na waar su ko defee kon nag nañu ragal xaq gi dox suñ digganteeg suñ morom xaq bi dox sa digganteeg sa borom moo gën a xoyof yàlla ku baax la ku bari yërmandi la lu say togn bari bari boko ko mu jéggal la mo tuddee bopam ne innahu huwal barur rahim mais lo séq ak sama romam nit xolam tang ci ci haq yoo xam munu ci dara amut lu ngoy koy lu dul ronxañ yalla day wax ne sama yoon newu ci yaag mom lay régler lamay may nak fa ba dagale amu fa sañ-sañ amu fa ndomba tank amu fa daraja amu fa ñepp lay summi bañ tolloo ma jël haq ñi nga amel fayal ko ci sen lu bax la sa lu baax la ma jox la ko bu lu baax la amut ñu jël lu bon la këpp la ko yàlla nañ ci yàlla musal bàyyi naa bàyyi na wax jooja léegi nag yàllaay wax ni yonent bi nekkee xéewal ci ñun xéewal gu day na yonent yàlla Muhammad ci ñun waruñ koo jiñ sàcc de xéewal la ci ñun bu yàlla yónni woon ci ñun malaaka ñu am problème ci problème communication bi duñ mën a waxee ak malaaka bu yàlla yónni woon jinne xam ne ku joom mi sax ñu ne xanaa dangaa gis jinne fu ñu bu yàlla yónni woon ay rawaxaan mbaa mu yónni fi maanaam euh, ay mala kon ñaam problème mais yàlla ne bokk na ci sama xéewal gi ma leen defal nit laa yónni ci comme yéen muy wax ak yéen li muy wax ngeen mën koo dégg mu yorey tànk yorey bët yorey nopp ngeen xam ko mu xam leen waaye ki may ki ma yónni nag moo gën a seer ci yéen min ko moo gën a seer ci yéen waaye bu ma yónnee woon malaaka ngeen am solo moo tax su ma yónni malaaka sax dama koy solo jëmmi nit walaw jaalnaahu malakan la jaalnaahu rajulan wala labasna alayhi ma yalbasu ma yalbasu yàlla ne laqad man na wallaahi sa dëgg-dëgg xéwé na laahu yàlla alal muminina ci way gëm ñi is baasa ba mu yónnee fihim ci ñoom rasulan ndaw min anfusihim mu bokk ci ñoom yet loo ndaw loolu dana jàngatal xalleem ci ñoom ayaat ay yàlla yi wa yusakkihim ndaw loolu dana laabal leen ci bàkkaar wa yuallimuhum ndaw loolu dana xamal leen alkitaaba téere ba di alquran wala xikmat ak xatta ya ca ne wa in kaanoo nekkoon nañ min qablu njëkk dikk ndaw li la fii dalaa nekk ci sànkute mu binin ngay aji biir aw lama asaabatkum ngir li nga xam ne wala nga xam ne jot na leen waxtu nga xam ne jot na leen musibatun musiba bu métti ci ray ga ak gaañ ga ca uxut xadd asabtum jotoon ngeen mislaha ñaari kemam ca badar qultum ngeen nekk di wax rek ne année haasa naka lii la mën a amee qul wax la ne li xam huwa moom min indi anfusikum bàyyi ko seen bopp a tooñ seen bopp ina laa naka yàlla ah, qadirun aji xattan la ala kulli shay'in lépp lëf de leneen yonent bi waxoon bu ngeen ko amoon du am wa ma asaabakum lu leen jot yawmal taqaa bis ba dajee jamhaani ñaari mbooloo ya fa bi idnillahi mi ngi bàyyee ko ci ndigalal yàlla de def na ko nag wali yaxlama ngir na feeñal xam mu'minina way gëm ña te sellal ko ci ngëm wali yaxlama ngir na feeñal xam alladina ñi nga xam ne naafaqoo naafeq nañ وقيل وخنا وقيل وخ لهم يان لن تعالوا كايلن قاتلوا نين خيا في سبيل الله غير يكتي دين يالله جي او يدفعوا ولا نين جان جيغال ني مبولو يوك سون ليمبي قالوا ني نه لو نعلم بن خمون قتالا خيا لتبعناكم كون ني توبلن عبد الله بن ابي اك نيت تيمير يوي نيوكو واخ يالله ني داني كاتيهم نيوم دال آه، للكفر سين قليل للكفر سي كفر يوم يتم بسب aqrabu la gën a jege min imaan ci gëm yàlla de yaquluuna ña wax bi afwaayum seen i gémmañ maa laysa fii qulub nekku seen xol yi wallaahu yàlla aalamu aji xam la bi maa yekkatun lu ñuy nëbbu de allazina gaa yi nga xam ne laa wax xaaloo wax ne li ixwaani ñeel seen mbokk ya fekk ñoom bañ koy wax qaadoo ñoom ña nga jékk demuñ fenn ñu ne ñoo ko def law ataauna bu ñu toppoon maa qutiloo defu rayef leen yàlla ne su fekkee loolu dëgg la xul wax leen na ngeen jañ kon an anfusakum seen bakkan almawta dee in kuntum nekku saadiqin di way dëggu manta yàlla ne ah, yonentu yàlla Muhammad mi ma yónni sallallahu alayhi wa sallam muy nit di yéen yore làng woo xam ne bu ko waxee ngeen dégg ko mu ñëw fekk ngeen yaradiku mu yar leen mu ñëw fekk ngeen réer mu xamal leen mu ñëw fekk ngeen bon mu baaxal leen mu ñëw fekk ngeen dëng mu jubal leen xéewal gu rëy la ci yéen su ngeen ko xamoon xewal nak lum reuy reuy boko boo ko amee ta xamoo ko weesoogoo ñàkk ko soo ko ñàkkee ta ko am ko mune timit li len jot ci musiba ci uhud mile ala kulli hal war ngeen ko mëna muñé la ngeen tégon ca gaw gaaya ya ca badar rayon ngeen juroom ñaar fukk japp jam juroom ñaar fukk gañ ñi bari nga ca dess daw yeen fi yeen ngi len ca badar fukki nit ak ñent ba uhud uhud gi ñu ngi leen reyal ñaar fukk ak ñaar yéen ci boppam ñu rey ci yéen juróom-ñaar fukk ak ñaar gaañ ci yéen juróom-ñaar fukk waay waay waay mu ñëw leen li leen yàlla def ci uhud ji ci la leen yàlla defal ca Badar su ko defee tamit te lii bu amutoon du ngeen xàmmee naafiq yi baatam nifaaq ci olof mooy tekki tëj fël ah ku mel ni bëlëb dana ko xam ca àll ba xam ne jaxar lañu ñu tuddee yarbu moo koy def bu gasee dafay gas ñaari pax pax mii nag dafay feeñ meneen pax mi da koy gas ba mu des tuuti boo ko dàqee wala nga sër ko nga nga nga nga nga sër ko rek su ko defee mu jaaree ca pax moom a génn baat bi nag amoon na waaye xamuñu woon ko xa istilaax bi ñu koy jëfandikoo amutoon xa njëkk xablal islaam xamuñ ko woon lislaam ñoo ñu xam lan mooy naafiq mooy koo xam ne ñaari port la am boo ko séenoo ci porte bi mu génnee ca koo kookaa gën a yées nag moom la moo dal gaay yi di abdullah ibn ubay ak mbolo xam ma ñetti témé rek ñi topo ñu ne leen ñu ñëw ni and ak ñun wala ngeen yokal ñu mbolo ñu ne bu xamone xex and ak yeen ñun xamuñu xeex rafetaluñ ko wax seeni wax yoya ñu ne ñoko def suñ mbokk ya demone buñ fi togon xexi wuñ kenn du dee yalla ne su fekkone ne ñoom xeex yi leen taree dee mo leen tax a dee ñi xexi yi ton lool mo leen taree dee kon bu dee ñëwee na ngeen ko protéger ba du xexi si luñ ci mat xam nga la joju wax dara gënu ko loola mu ngi jëm ci jeexitalu xare ba nag ba xare ba jeexee commentaire ya xare ba jeex na commentaire ya léegi nag ña ca dee gaa yi xamul neex suñ mbokk yi perte nañ rek dee nañ bàyyi fi ceeb bi dee nañ bàyyi fi ndomba tànk yi dee nañ bàyyi fi seen soxna yi dee nañ bàyyi fi bàyyi fi bàyyi fi seen doom yi dee nañ bàyyi fi seen kër yi perte nañ su fekkoon ne toog nañ demuñu woon fenn kenn du dee ñu commencé di wax loola yàlla ne ñi ngeen di méttitlu seen ak dee gi ñoom de ñu ngi leen di méttitlu sax tey bu ngeen xamoon bànneex yañ nekkee fekk na ñoom bànneex gi nekk ci xéewal yaa jël yàlla jël seen rooxu ya ñu installé ko ci doqi ay njanaaw ñuy naaw ak ñoom ci toolu jardin yi aljana ya ñu ngay ngee joxu ne waaw ñun teraanga ji ñu nekkee ku ñu koy mën a jotal ci suñ mbokk ya yàlla ne maa leen koy jotal wàccee ko ci alquran wala taxsiban lazina qutilu fi sabilillah am amwaatan bal ahyaawul bal ahyaawul yàlla ne bàyyi leen li ngeen nekkee ma wax ko seen mbokk ya gis nga suhadaaw yi liñ am may la goo xam ne sax yonantu yi xamuñ ko yonantu bee koy wax yàlla ne yonantu bi nee na yàlla terale na suhadaaw yi juróomi teraanga jox xam ne benn yonantu xamu ko ñu ne ko ban ak ban mu ne bi ci njëkk suhadaaw yi ñu dee ci xare yàllaay méngoo jël seen roox ya directement malakal mawtu lu jël seen roox mu ne xataa ab yonantu sax buy génn àdduna malakal mawtu jël rooxam gis nga yonantu bi ba muy génn àdduna malakal mawtu ñëwal ko ku ne jàng na ko waaye mu ne shahid ku shahid jamono jamoy génn àdduna yàllaay méngoo jël rooxu ga loolu tedd nga la ñu ne benn mu ne ku shahid moo am darajaay kenn du ko sang ci ndoxam àdduna mi xeeb na ndoxam àdduna ndoxam àllaaxira lañ koy sangee te ab yonantu bu deexee dañ koy sang yonentou bi ne sama mbokk yonentou dañ leena a sang taman mi buma ma aduna da ngeen may sang ñaarel ba wala ñettel ba ku shahid kenn du ko sang yere yam géññee aduna rek lañ koy suulee bu sutural na awram man ko mur baxna bu ko murul ñu ul yeneen yere yok ko ca belto bam takak ak yépp way armem ba nak kenn du ko ko suulee dañ koy dindi waaye mbaxanaam maag beltoom baag dàll yaag yépp ñu nexé man nañ ko ko suulee ci waxi borom xam-xam yu bari waye nak ab yonentou duñ ko suulee yéreem yooya dañ koy sàng mu ne beneen bi ci tegu mbooleem kuy ramm dañuy am heure bu ñu lay may rek nga ramm bu ramm nga jeexee jeex na mais nag euh, suhadaaw yi dañ leen may bët bu set ñi ramm bët bu set rek ñëw seet ñu leen neex rek yàlla ànd ca ñoom ñi ramm leen yonentu bi ne juróomeel ba ku dee tudd ku dee ba mu mooy ñi dee ci shahid ñi dee ci shahada ñoom dee nañ waaye tudduñ ku dee yàlla dafa ne bal ahyaun waaye ku deexati rek dugg ca am waat ya waaye ñoom dee nañ waaye terewul ah maanaam ahyaawun la yàlla wax waaye lii jar na jar na dee di ci xare di yooyu mooy juróom yu yonent bi tudd boo demee ci ahkaamul quraan mu tudd juróom ñaar yi am mu ne ñi dee ci xare yàlla dafa leen jéggal seen bàkkaar yépp benn ñaareel bi bala ñoo dee yàlla wan leen seen lusmaa ci aljana ñetteel bi ñoom du ñu jaar ci mbugalam bàmmeel mu ki ci mbugalam bàmmeel yombul mais ku dee ci xare doo ca jaar juróomeel bi maanaam fasaxul akbar tiitaange gu métti ga keroog bis pénk ñoom duñ ca jaar waaye nag bu yowmal xiyaamee yàlla moo leen ni décorer comme ni feetu indépendance bu jotee ñaara fi ne ku ñuy gracier ak ku ñuy décorer koo dégg ñu dañ koo gracier rek defoon na lu defuwut mu nekkoon ca kaso ga ñu gracier ko mu génn fa dem géej sangu door a dem këram waaye ki nga xam ne dafa liggéeyal réew mi nag moom dañ koy décorer bu yowmal xiyaamee nag ña liggéeyal diine ji mooy suhadaaw yàllaa leen di décorer mbaxana moo xam ne xamul ci àdduna na nga xam ne sahid lu fort a la ñoom nag ñoom lay wax si nii lañ nekkee nag dafa neex ñu ne waaw ñun teraanga juñ nekkee ku ñu koy mën a jottali suñ mbokk ya yàlla ne maa koy jottali ku ko jottali ku dul man mu manqué mbaa mu xëpp bàyyil ma jottali leen ko ma wax si na ko jottalee moom lay wax si nii yàlla ne yow yonantu bi wala taxsibanna bul njortu allazina gaaya nga xam ne qutiloo rayef na leen fi sabilillahi ngir yëkkati diine yàlla ji am waatan nekk way dee bal li fi nekk ñoom daal ahyaawun way dund lañ inda rabbihim fa seen borom yursaquuna def na wërsëgal leen bu ko defee tamit farixina mbir mu ñuy way bég bi ma aataahum ci la nga xam ne jox leen ko laahu yàlla min fadli ci ngëneelam wa yastabsiruna ñu ngay bégee bi la seen nga xam ne lam yahaqu xajuhum bihim ca ñoom min xalfin nekk seen gannaaw ñu ngi leen xamal ne allah xawfun di tak ragal alayhim di nekk ci ñoom wala hum de ñoom tamit yaxsanuna ñuy jàq de ñu ne leen ñun de ci teraanga dong lañ nekk mën nañoo wax ne yàlla layta qawmi ya'lamun bima ghafara rabbi wa ja'alni minal mukramina loolu daal bu ñu ko mënoon a wax yàlla ne maa leen koy waxal lañ nekkee nag la ñu yàlla waxal nii ñoom suhadaawu ya seen teranga ya am na ci ñoo xam ne seen roox ya yàlla ko installé ci doq njanaaw ñiy wëtti ci toolu jardin yi aljana yi am na ñoo xam ne yàlla leen saxal laaf ñiy naaw ànd ak malaaka yi ku mel ni jaafar ku ku ku nekk yi rek yàgg naa dégg bàyyi bu saako nettali xisa ba yonentu dafa daan toog ba ci kanam mu ne wa aleykum salaam ñu ne ko koy fay mu ne jaxra fi jaxfar moo fi jaar léegi ànd ak malaaka yi moo may nuyu moom laay fay te loolu lépp lu ko ko may dee léegi nag gannaaw ba ñu bégalee léegi nekk seen gannaaw ba seen xel dal ñoom tamit ñi ngay bégee la ñuy dund lañuy dund nag la ñuy wax kon ñoom dañoo gën a xiir ci seen mbokk yi lañ gën a xiir ci seen bopp moo tax dañoo dëfal seen mbokk yi ca lañ nekkee ba seen xel dal ñi door a nag ñoom tamit doo door a bégee ñoom la ñuy dund moom lay wax si ni lañuy ñuy dund ñoom yàlla ne yastabsiruna ñu ngay bég bi ni'matin ci xéewal mi ne laay bu koo ci yàlla bu fadlin ak wa ana laa naka yàlla laa yu dee du sànq ajral muminina payoor ak way gëm ña de dana leen ko jox ba mat sëkk ña ngay bég ci payoor gi leen yàlla fay di bégee la leen yàlla buuñaa buuñaa ga mooy war leen boppam lillazina ahsanul xusna wa ziyaadatun siyaada googa mooy fadlu ga moom la ñuy bégee aaya yi ci tegu nag allazina sajaabu lillahi wa sooli xare la ñu koy tuddee badru suxra mi ngi xew bi gàddaay gi amee ñeenti at ndax waxoon naa la badar ñaareelu at ca gàddaay ga la uxud ñetteelu at ca gàddaay ga abi sufiyaan nag bi mu teqalikoog yonantu bi ca uxud sallallahu alayhi wa sallam dañoo joxante war rendez-vous ni ko déwén déwén la ñuy xeexaat fu ñuy dajee mu ne ko ñu ngi dajee ci mawsimu badiru suxra badiru suxra place la boo xam ne jaahili yi na yi naka jekk dañ fa daan dajee ak arab yi di fa jënd ka jaay def fa juróom-ñetti fan door a bi mu ne leen nag foofu mooy suñu rendez-vous bi ba mu ko waxee ca déwén sa jot Abu Sufyaan tiit yàlla sotti ngalawal yonantu booba noona ci xolam ak gaayam ya génnoon nañ ba ci yoon sax ñu tiit waaye gis nga borom kàddu la bëgg na fausse rendez bi waaye bëggul mu bàyyeekoo ci moom li muy nekk nekk yéeféer yëg na ne wax mu dañ nekkul ji koy gor mu ne nag sama wax ji wax naa ak yonantu bi wallahi bëgguma wax ji dañee ci man damaa bëgg mu dañee ca moom mu jël benn waay bu ñuy tuddee tabaarakallaahu euh, ñu xaw a wàññi kàddu yooyu mu jël benn waay fay ko ne ko dama laa bëgg a fay nga demal ma ca yonantu ba sallallahu alayhi pour xamal ko li dal ci suñ kaw Euh, Nuaymul Asja'i la fay xoolal sàmm kàddoom li mu ko yóbboo yóbboo na ko sàmm kàddoom mu fay ko fukki gëléem sàmm kàddu boo doon jëloon tey nga évaluer gëléem cinq cent mille fukki gëléem yi rek juróomi million la boo ne gëléem un million fukki gëléem yi rek dix million la dix million nga nekk ab yéeféer doo jullit nga ne deret di daw sama kaw mayul ma may wax muy dañ damaa bëgg dañ gi bàyyeekoo ci yontu mais bu mu bàyyeekoo ci man mën naa caa teg dix millions sàmm kàddu mu fay nooy mu ne ko fukki gëléem yaa ngi nii ku ma la koy joxal mu ne ko nañ ko jox Suhaylum noo amrin moom mooy suñ garante soo demee daal fexe ba yontu bi fomm nga ba ñëwul rek yaa moom fukki gëléem yi ñu ko d'accord nooy mu dem ba mu demee fekk yontu baa nga armé ak soldat yi fu ngeen jëm ñu ne ko abi sufyan lañ joxante woon ak moom randi woo ca badru sura mu bëgg a tayalloo yonantu bi ak gaaya ne leen hee ñooña de armée bañu am mënu leen leen a dékku su ma sañoon daal ngeen toog ci dëkk bi rek bañ fekk leen fi way bu leen génn bu leen ko def loolu bu leen ko xalaat sax yonantu bi ne man de xawma kan waaye danaa génn comme maa joxe woon sama kàddu sama randi woo la danaa dem donte man kenn nay dem la axru janna wala wax di damay dem donte man kenn nay dem départ kon luñ ci déggee aaya gi ñetti nit jigéen nit ñi ni ñu wutee nii la nit ñi mais ñetti nit a ngi nii ku njëkk ki sàmm kàddoom jaral na ko joxe dix million donte duhut jullit moom la muy jëflanteeg lépp nit ña la cay seet nit ña rek la cay seet mooy Abu Sufyaan kii sàmm kàddoom jaral na ko maanaam eh, yàq kàddu jaral na ko moom ñu jox ko xaalis bi mu dem doxi marché ba ndax xam na ñoo xam ne courtier rek lañ fo len fekk rek ci marché lañuy dox bëgg na nga dem yakal ma affaire bi dal amna ño xamni tay bo len boo xaliss ñi yak nit jël ay titre wax ko ci ne du kenn xam dul di dugg ci réseaux sociaux yi wax la wax ju bon ta fekk dañ leena fay rek xam loolu baaxut kooku moy jikkoy noy mu waye ko kan ko marchandise la courtier la fim tok xaliss ko fa bayyi keneen ke nak moy muhammad moom la muy jëflanté Setul ci nit ñi mais borom nit ñi la mu set muy yalla ne comme waxoon naa ko rek te daaw laa ko waxoon for force danaa ko masal comme yàlla may na ma may na ma wér kon gis nga nit ñi ni ñu wutee de Abu Sufyaan gis nga ni mel gis nga Nuhaym ni mel gis nga Sayyiduna Muhammad ni mel sallallahu alayhi wasallam boo dem na ñett ñii rek ñoo fa nekk ñett ñii rek ñoo fa nekk koo xam ne lépp lu muy sàmmante di ko wax ak yow yàlla la cay seet koo xam ne li muy jëflanteeg nit ñi la cay seet am koo xam ne li muy jëflanteeg xaalis la cay seet bu xaalis mu soppeeku léegi boo ne ko boo ko joxee xaalis ne ko damaa bëgg nga bawal ma diw mu baw ko ko joxee xaalis ne ko bëgg nga taggal ma diw mu tagg ko moom daal kur ci la rek xam nga kooku moo gën a bon kooku baaxut moom la yàlla wax si nii yàlla ne allazina gaa ya nga xam ne istajaaboo huyu nañ lillaay ñeel yàlla a rasuuli ak yonent bi ca badru suxraa min baadi ma asaabahum gannaaw bam mu leen jotee alxaraxu góom ya ca uxut la la lësi na gaa yooye ñooy ña nga xam ne mooy xabar ji axsanu ñoo rafetal minhum ca minhum ca ñoom wattaqu ñoom de ragal nañ yàlla moo taxi ñeel na leen ajrun payoor azimun gu màgg a màgg a màgg allazina gaa ya nga xam ne laa wax qaala wax na lahum ñeel leen annaasu nuaymu moom la ci namu ne inna na naka abu sufyaan ak mbooloo xam ma qad jamaau dajee nañ làkkum ñeel leen faxshawhum na ngeen leen ragal dool na leen imanan ak deugal wa qaaloo ñu ne hasbuna bayna nañu laahu yàlla wa ni'ma bahna baax na alwakilu kuñ sukkandiku mooy yàlla fanqala boo wëlbatiku nan bi ni'matin ci xewal min lay gu bàyyi ko ci yalla wa fadlin ak ngëneel lam yan sa suñ jotul leen soo un lor xeex ba sax mu jut am ñi dem Badru sughra jaay fa sen marchandise ma luñ jëndee won deureum ñu jëndee ko ñu jaay ko ñaari deureum du ko defé timit wallahu yalla fu fadlin borom ngëneel la bu ko defé manam maanaam wattabaxoo kon top nañ ridwaan laay ngërmande yàlla te wallahu yàlla moomu fu fadlin borom a ngëneel la azim gu màgg inna ma zalikum naka kookale seen di nuaymu a seytaanu seytaan rek la maanaam yu xawifu dafa leen ragal loowoo awliyaawoo xaritam ya fala taxaafoom bu leen leen ragal maanaam wa xaafoo ni na ngeen ma ragal in kuntum dem nekk ngeen muy mu di way gëm kon nit ñaangoog ci seen seen ñetti ñetti façon nit ñi rek ñoo nekk ci société bi léegi nag aaya ji ci tegu xéeféer ya dañoo mujjoon rek di gën di bëri rek munaafiqoon ya gën di bëri rek léeg-léeg jullit ñi am ñu ràlliyee dem ci kéeféer gi yàlla ne ko yow yonantu bu la loolu naqari lu bon bu ca ñëpp nekkee bu mu la déranger boo nekkee ci dëgg bu ca kenn newut na sa xol sedd te yow li nga nekk dëgg la moom lay wax si nii mu ne ko wala yox si naka bu jàqalu la fi nañ xam ne on dañ njëkkalante fil kuftaab bu ci kéeféer innahum naka ñoom lan yaduroo mënu ñoo lar laahu yàlla say an dara yuru dafa namu laahu yàlla allah yajala mu ñàkk a def lahum ñaan leen xasan benn cër ci àdduna ak àllaaxira maanaam bu ñu am benn cër fi laaxira ci àllaaxira wala hum da na seen kaw asaabun mbugal asimun mu màgg de ne gis nga gaa yi nga xam ne istara watee nañ alkufra kéeféer bil imaan ci ngëm lan yaduroo la mu ñu lor yàlla say an hum dal na seen kaw asaabun mbugal alimun bu métti su ko defee wala yaxsibanna bu njortu la si la nga xam ne kafaru dañoo weddi yàlla ni am na maa num lii da koy taawil masdar naka sama muñal lahum ñaan leen xayrun xiw la li anfusum ñaan seen bopp waaye inna maa num li daal danañu muñal nga bàyyi ko ca fexal ja lahum ñaan leen li yes daadoo ngir nañ dolleeku isman ci bàkkaar wala hum dal na seen kaw azabu mbugal mu ngi may borom ak doxaji de maa kaana nekkul laahu yàlla di waaje bàyyi al mu'minina way gëm ñi ala maa antum ci li ba ta mu jàqee alxabisa naafiq bi min at-tayyibi ci jullit bi wa maa kaan nekkullaahu yàlla li yutliakum di leen waaj a yëral alal xay bi ci lu fàddu neen laan kii mooy naafiq déedéet du leen ko wande wa dégg nga ko def mukk walakin fi nekk laahu yàlla te bi mooy tànn min rusuli ci yonantu bi man saaw ku ko soob boobu kon nag fa aminoon na ngeen gëm billaahi ci yàlla wa rasuli ak yonantu bi wa in tuminoo ba ngeen gëmee yàlla wa tattaqoo ngeen teet bokkaale fa lakum ñeel na leen ajrun payoor kon nag yàlla ngoog ci aayaat yooyu nit ñi daw di njëkkalante tàbbi ci kéeféer bu mu la déranger bu ñu dee dem safara li ma guddal seen fan dama namm seen duma yi diis rek ndax nu ñu fi gën a yàggee gën fee bëri bàkkaar soo lëggee duma yi ma leen duma gën a diis rek li ngeen bëgg nag du am gëm naa yàlla ma bàyyi leen ci ni ngeen ne duma leen gësam ba xam ñu ñor du am su ko defee tamit fokk ma gësam leen ba xam ba ngeen xàmmee yéen ki seen biir man xam naa ñi bon ñi ak ñu baax ñi du ngeen ñu ne ko waaw xare bi ñu dee ci ñu rey ci ñun ñu bari ñu bëri gaañu te lu ko waree yépp mooy da ngaa bëgg a wane naa féq yi suñu biir mënoon ñu ko woon a wax rek ñu ñàkk a xeex yàlla ne déedéet du ma leen ko yëral man maa koy xamal ci sama bopp rek waaye wa maa kaana laahu li yutliakum ala alxaybi kaanaay maanaam juhud la wa kullu kaanun kullu qablahu ma kaana aw lam yakun fa lil juhudi baana aaya ji la ñuy daanee yàlla ne wala yaxsibanna bu njortu alladina ña nga xam ne yaqulun danañoo nay danañu nay bi ma aataam leen jox laaw yàlla min fadli ci wërsëgam fekk mu naam huwa moom nay ga xayrun hiw lay doon lahum ñaal leen déedéet bal li fi nekk huwa moom nay ga sharun xay leen lahum sa yu tawaquuna na ñoo caqoo maa baqiloo lañ nay bi ci moom yowmal qiyaamati walillaahi aji nekk la ñaal yàlla miiraasu samawaati donoom juróom-ñaari asamaan wal ardi li fi nekk lépp jaamam lañ mindeefam lañ moomeelem lañ wallahu yàlla xabiruñ ku dañ kumpa la bi maa tax leen xam yéen a ngi koy def de la nag laqad a dégg na laahu yàlla xaw la fi ne waxi gaa yi nga xam ne xaalu dañoo wax ne inna laaha naka yàlla faqirun ku ñàkk la wa nax na ñun ñi axniyaaw ñoo ñu xoomal sa naktubu danañu bindalu maa xaaloo wax ju bon googu ñu wax wa danañu bindalu tamit maanaam xatlahum seen ak rey anbiyaa yonantu yi bi xëyri xaqin ci lu duhut dëgg ak maanaam danañ ko bindulu su ko defee tamit wa naqulu ñu wax ne zuqu mos leen azab al mbugalam lakk cest loolu boo gisee ma def ko bi maa xaddama saw bu loo xam ne gisoon ak ay diikum seen loxo inna laa naka yàlla laysa bi zalaamin ak tooñ li la abidi ñeel jaamam yi yàlla du tooñ kenn kon nag ñu yeewal foofu dañu wax ne yàlla daf nekk na man sa la fi yuqridu laa qardan xasanan ku may lebal ku may lebal ku ma lebal benn ma fay la juróom ñaar fukk yéeféer ñun yàlla ju ñàkk bay leb ñu duñ ko topp fekk yàlla kat <laughs> lebut ñoom loolu lañ gëm bu ko defee kon nag yàlla ne man lebuma dama leen a bëgg a lebal rek ndax bu ngeen ma joxee benn ngeen lebal ma ko ma fay leen ko juróom ñaar fukk waaye man lebuma leen ndax yéen xamu leen dara yéen ñëpp a ñàkk man rek may yëg niiw ñoom nag ñi déggee aaya ja sens boo xam ne bokkut ak moom ñu nekk fi ni wax jooju ñuy wax nag naqari na yàlla yàlla nee na sama malaaka yaa koy bind de bu yowmal xiyaama dinaa leen ko mbugal rey gi ñu rey sama yonantu yi te liñ leen reyee sax xam nañ ne du dëgg bu yowmal xiyaama dinaa leen ko mbugal de ci mbugalam lakk bu ko defee loola nekk gi seen mbugal moo xam ne dinañ fa fekk ëllëg kon aayaat yépp leer na yàlla nee na tamit nay duhut jàmmi boromam boo nayee ba asaka ji war a war a génn ci yow te xam nga ñuy génne asaka léegi ñu néew lañ daanaka man sax boo seetee baadoolo rek ñoo génne asaka waaye patron yi waxuma ne ñu ngi génnee waaye de wóor na ma ne ñëpp génne wuñ de yéen yi jaay suuf da ngeen a war a génne asaka de at mu jot da ngeen di seet terrain yi nga xam ne jar na jar na te sànq gu leen njëgg ngeen boole kook terrain yi jaragut ci prix bi mu war a mën a jar nga ne ah am naa kër sàngam dama koy jaay nangam la nga boole yëpp lam la jox ci xaalis un million bu ne ngeen génne ca vingt cinq mille yéen jaaykatu oto yore ay parking da ngeen wara genné génne asaka de xat mu jot seet len li jar ci auto ya ta sank gu len xaliss ba ngeen bolé ko auto yi ngeen jënd ta jaragut ngeen def ko inventaire yeen commerçant yi jaay morse ya yeen ñi jaay télé ya yeen ñi jaay frigidaire yi yeen ñi nga xamé ne da ngeen fayé ko weer weer wu dee ñi fay len buñ la fayé nga dundee lii denc li la nga denc bu ko fi déwén ci fekkee bolé ko soldu bi nga mujjé fayé ko nga bolé ñom ñaar ñëpp comme matna 1 million 200 cent 85 quatre grammes ci or nga génnee lépp asaka ñaar téeméer yi ne juróomi dërëm waaye léegi asaka ci gën a bëri baykat ya rek ñooy génne ñoo ci gën a bëri ak lenn ci commerçant yi nga xam ne dañoo néew doole waaye patron yi nga xam ne ñi nga xam ne ay milliards ñi yore ay millions néew na ci ñuy génne asaka te asaka nag xaqi nit la yàlla tuddee na ko tur bu bari ci alquran dana ko tuddee xaq wa aatoo ma yawma xasaadihi kon xaqi nit la soo ko waree génnee génneewuloo ko yàllaa koy génneel boppam yàlla nag bu ko génnee rek mu ëpp mën na koo génnee ñi nax la mën na koo génnee ñi sàcc la mën na koo génnee lakk sa kër gi mën na koo génnee sa njaboot mu teg ko feebar boo xam ne mënuñ koo fajee Sénégal bitim réew lañu koy fajee ji nga ñàkk ca millions yu bari mën na koo mën na mën na koo génnee sadd la feebar gars yi embarqué yóbbu la yóbbu la France pour war la faa faje nga ñàkk ca lóopu cent million te fekk asaka ji nga waroon a génnee sax passé wut ay vingt millions kon nag ministère yi di leen génnee asaka député yi na ngeen di génnee yéen waa assemblée beeg yépp comme yéen a ngi fayeeku daal la sànkoogut boole leen koog li sànku li sànkoogut ak li mujj lépp ngeen boole ko génne yépp yaakaar naa ñi war a génnee asaka yépp buñ ko génnee woon ñu war koo joxe nañ ko war a joxe fukkaraaw yeeg masaakin yi danañ wàññeeku waaye day gën a yokku rek at mu jor rek boo seetee taux bi rek muy muy gën di wàññeeku jëm kaw kon nag nañ bàyyi xel ci loolu lépp nit ku ne la muy yëngu mu am lu cay ruus mu am lu cay denc rek lam denc bu ko fekkee rek santee ko yàlla nga génnee ko ndax da ngaa war a sant yàlla ngir ñaar yàlla may ne la nga fekkee ren ba déwén am na ñu fekkee wut bu la yàlla may nga fekkee mu may la nga fekkeele léeg-léeg nit fekkee te fekkeele wut yow na nga boole fekkee ak fekkee fekkeele kon doo sante yàlla li nga fekkee fekkeele nga génnee ci asaka nga bëgg ko faa bàyyi loolu baaxul boo ko deful yàlla génnee kon nag yéen ñiy fayeku salaire bu leen bàyyi dara yéen ñiy fayeku weer yéen ñiy commerce yéen ñiy yëngatu la ca mën a ruus daal mu fekkante rek génne leen ci asaka ku xamul dara nag yàlla toggu la dara li ñu mayoon ci waxtu wi jeex na lu ci leer yàlla la lu ci lëndëm gàtt xam-xam ak ñàkk fasaax la yal na yàlla defal ñu tawfiq ak taysir xir ñu ci boppam